élection assemblée lañ jëm soxlawuñu ay député Coura Macky ci assemblée bi gars yi Maya lan ngay wax le 17. dama ne ngeen pare comme ni ngeen pare woon. dama ne ragal yab yàlla la. te dañoo ànd ki jara àndal nag. waaw te boo àndee ki jara àndal. waaw da xam ne ànd nga ak ki jara àndal te Sonko moo jara àndal. merci beaucoup ma sama baax a baax a baax tàccu ko. merci beaucoup Maya. Elle a la volée devant elle. Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yes, sir. Yeah, man. Because. Yeah, DJ. Yes, sir. Yes, sir. Ubi. Ubi, after that Yes, sir. Merci, merci, merci. Put it down, put it down, you flip, fly. ubbi DJ DJ merci DJ merci parce que gars yi dafa mel ni dañu yàkkamti woon lii ñëw voilà ngeen may ñu tuuti comme ça ma sœur Oumy mu continuer programme bi jërëjëf merci Pastef bi ngeen wane nii sànq nii moom laa bëgg ngeen wane waat ci accueil bi ma bëgg ngeen réserver ki ñuy euh, nara fekk si nii sur scène yéen yéen ko xam comme yaayu Pastef mu yor mouvement national des femmes du PASTEF mais moom Sénégal yëpp a ko bokk ndax pendant des années dafa bokk si ñi nga xam ne ñoo ŋànk xeex bi contre le cancer du sein au Sénégal taxawal jigéen yëpp muy soxna Maimouna Dieye tàccu leen ko donc moom engagement wam pour la nation commencé wul rekk ak sa nomination au poste de ministre de la famille et des solidarités dafa yàgg taxawu jigéen ñi yàgg taxawu les malades du cancer en général au sein de la LISCA où elle a occupé le poste de chargée de la communication Maïmouna c'est un immense plaisir de vous revoir aujourd'hui merci beaucoup kontaan naa te gis naa ko fa mu nekkoon ba tey jógu fa nag ndax mu ngi takk ruban rose am ah, waaw ñu daal di jublu fan yi ci octobre rose bi xam naa liggéey bu am solo bi ci ministère bi di waaj alors madame le ministre vous avez la parole aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim où la jeunesse de mon pays ana ngeen yéen jeunesse su Sénégal jug taxawuma gis leen dafa am way boo xam ni pendant toute la campagne électorale pour élire le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dañu defoon caravane des Linguères pour fal Bassirou Diomaye Diakhar Faye way woowu laa bëgg a ak yéen am na ñu ma gisagul aye yow Sonko la mu ñoola Sonko namunanya Sonko Sonko Sonko namunanya merci merci merci jërë ngeen jëf. merci. merci merci moo ñu xooj temps moo ñu xooj merci beaucoup. lii sunu bàkk la lii ma def nii sunu bàkk la doom soo bëggee mu am fit mu am jom. danga koy bàkk danga koy tagg te dañu yor ñaari ponkal nag muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak la président Ousmane Sonko. ma leen di jëfal bu baax yéen tam li may tàmbalee waxtaan bi ah ma de ab lépp laa leen bëggoon léebal léeboon léeboon amoon na ba mu amee yéen a fekkee ku fekkee mën ngaa nettali waaye duma wax benn paa woon dama naan ab réew la woon réew moomu mi ngi tudd Sénégal jaaxle woon lool muy mel ni jigéen joo xam ne dafa nekk ci néegam di souffrir ak njabootam ñii duñu añee duñu reer wala duñu ndekki mu metti ci jigéen jooju jigéen jooju mooy Sénégal boot ay doomam uuf leen ci wetam doom yi naan ko yaay muñal billaay bu ñu màggee di nga nopp doom yooyu mooy Pastef doom yooyu mooy le président Ousmane Sonko waaye doom yooyu mooy le président de la république du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye fii laa bëggoon duggee parce que lii laa yëg sama yaram tey c'est une journée de communion parce que l'histoire de Pastef c'est l'histoire d'un peuple et ses dignes fils et filles yéen ñii yéen a gëm Sénégal salle bii ñu nekk tey leer na ma ni buñ ko seetee ba ci biir lu musul am lañ fi gis ex détenu ñoo fi ëpp ñi nga xamante ne musuñoo dugg ci kaso kon jaaraama jaaraama ñi nga xamante ni xeex nañu ba xeex bi yegg si fii tey dañu xeex ba yegg si fii waaye sama gaay Ousmane Sonko mënuñu ko fay de Ousmane Sonko jërëjëf dina ma gis xëy na fii waaw jërëjëf Ousmane jërëjëf mënuñu ko fay waaw mënuñu ko fay ndax li mu def kenn mësu ko gis ndax ba ñu toogee ci sunu néegu yaay jooju di ko muñloo 60 ans ñuy muñloo sunu yaay jooju di Sénégal mu taxaw taal xel yi ne ñu xam naa yoon bi ñu ànd ak moom ci yoon bi yoon bi metti lool diis lool lëndëm lool mais ñu résister moo tax ma leen di jaajëfal on a résisté